maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ci njukkal sëriñ Touba yónnee fa yaakaar naa jot li kàddu yu gàtt dana ci jaadu yu tukkee ci sëriñ Touba Cheikh Mouhamadou ma tàmbale sama wax nag ci nuyu bu baax a baax sama mag sëriñ Cheikh Aziz mi ngi ni toog sama rak sëriñ Gallas Kaltoum mi ngi ni toog ñoom ñooñu kenn kuñ ci joxoon kàddu mu wax ci turu sëriñ bi dana yell dana jaadu ndax fu ñu teew mën nañ faa teewal sëriñ bi waaye nag kon ma wax waxaale leen jottali sëriñ bi ni ngeen ko xamee Cheikh Mouhamadul Mountakha digganteem ak maam Cheikh Ibrahima Fall yaakaar naa du luñ leen di jàngal. Allah Allah. ni ma ko waxee sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha digganteem ak maam Cheikh Ibrahima Fall fi mu ko teg ku ne xam na ko ndax tudde na ko doom ku tàmm waxam bi mu daata toog jataayam bi ak bi mu toogee jataayam bi danga dégg muy tudd maam Cheikh Ibrahima Fall di dellu ci moom ci ay wax ci ay jëf te liy firndeel loolu ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku bis yi nga xamante ne woote woon na ko fee ca Touba woo ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu def ko 24 heures yoo xam ne dañ ci doon tudd yàlla di zikkar loolu ku ne xam na ne Cheikh Mouhamadul Mountakha jubluwaayam mooy ca jëf joojee delloo njukkal maam Cheikh Ibrahima Fall. waaye jaare ci nammat pas-pas ak taalibe akuk taalibe ci njabootam ndax bis boobu bañ ci jógee ba léegi ku ne xam na ne pas-pas yi gën naa yees pasteef yi gën naa dëgër taalibe gi gën naa rafet te loolu lépp sëriñ bi mi ngi ko jaare ci maam Cheikh Ibrahima Fall te yaakaar naa loolu ku koy wut jaare ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall ci nga ko mën a amee kon nag sëriñ bi digganteem ak maam Cheikh noonu la demee kàddu yi nag ni ma ko waxee kàddu yu gàtt lay doon kàddu cant jëme ko ci sëriñ Cheikh Khadim mi taxawal bis bi ndax bis yu mel nii suñ ko taxawalee sëriñ Touba wala ñu taxawal ko maam Cheikh Ibrahima Fall wala ñu taxawal ko ñi njëkk ànd ak sëriñ bi. bis yooyu sëriñ Muntaxa moom jàpp na ne moo ko war a jiite lu luñ fa war a def moo ko fa war a def lu luñ fa war a jëf moo ko fa war a jëf ndax moo fi nekkal Cheikh Ahmad ba sëriñ Touba kon bis bi lu fi waay def mel na ne moom nga ko defal lu fi waay jëf mel na ne moom nga ko jëfal ndax noonu la bis bi toll ci moom kon mi ngi sant bu baax a baax sëñ Cheikh Khadim mi ko taxawal ak mbokk taalibe yi mu ko àndal ñun itam ku fi teew ameel nga ko cant ndax may nanu ci benn guddi ci benn jataay ñu liggéeyal sëriñ tuuba liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall te loolu ku la ko may ameel nga ko cant kon ñun ñëpp nañ maase sant ko ci lii mu ñu may ci bis bu rëy bii kon daal kàddu yi kàddu yi cant la kàddu yi ngërëm la kàddu yi ànd ak yéen bis bi la tukkee ci sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Muntaxa waaye kàddu yi ñaan la yu tukkee ci moom ngir sunu boroom dotti gën a dotti ay xéewalam ci kuréelub sëriñ Touba bii fi teew gën a dotti ay xéewalam ci réew mi gën a dotti ay xéewalam ci taalibe yi gën koo dotti ci jullit ñi loolu ci tënk mooy kàddu yi ma doon jottali ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha di leen gërëm di leen sant wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sang bi Serigne Cheikh Khadim Fall man Modou Mbacke Fall sous préfet Grand Dakar maa lay nuyu ci turu samay kilifa yi ma fi teewal dale ko ci président république Macky Sall jaar ci ministre intérieur gouverneur région ak préfet département ñu wax niñ naa leen fi teewal fii ci sa bis bi tey muy màggal goo xamee ni baaxoo nañ gouvernement bi fi ñëw di fi teew ndax dayoo bis bi ak ni mu toll yàlla dogal nag ñaari at yi li fi jaar muy mbas moom jox Covid 19 tax def ñu ko woon nii ren bi ñu ko reprendre aussi ñu jël liñ ci waroon def yëpp gouverneur région président CRD bi ba li ñu fi teewal tey ci wàllu sécurité ci wàllu audiovisuel wàllu hygiène ak wàllu source état man fi teew wante yàlla dogalit nag ba tombeek ay xat-xat ba niñ ko bëggoon ministre yi waroon a ñëw am lu ko téye au dernier moment lañ ma jox ndigal li ma comme at mu jot danga fay dem demal nga teew fi sëriñ bi wax ko ni ko président ci boppam yëg na bi te gënn bi mu ko war a jox incha na ko jox te ku ne yoo xam ne si diggante ak président Macky ak ni ngeen jàppante loolu ñuy ñaan mu continuer te yàlla yàggale fi te la di jël nag suñu nuyoo ñun suñu nuyoo bopp ndaxte taalibe lañ doom lañ ci kër gi yaakaaruñ ku dul sëriñ Tuubaa amuñu lu Tuubaa ñëw suñ ñëw suñu kilifa tey ji toog fii ci jataay bi di kilifa jataay bi ak gépp kilifa koo xam ne nii ñëw nga teew fi ci te bokk ci kër Serigne Touba di Serigne Touba si Kaltoum di kilifa yu baax yi te nuyu représentant xalif général des Baye Fall xam ne daal réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk rawatina nag bu ne ci kër Serigne Touba. Modou Mbacke Fall nag buñ ko doonee ci biir sëñ Cheikh Khadim Fall juumuñu kon man sama cër bopp laa fi ñëwee itam di ñaan nga ñaanul ci bis bi yàlla yokkuñu yàlla defal ñu jàmm defal ñu xéwal ci barke maam Cheikh Fall di ñaan it lépp loo xamee nii bis bi lamboo na ko ci ngëneel yal na ko yàlla wesaare ci Sénégal ndaxte mag ñu baax ñu de man de sama doon wax naan Mamadou Kane naan bëri na ko lekk ku añee jën boo xam ne xamoo mool ba ko napp jàmmi senegal sëriñ Touba la du keneen jàmmi Sénégal maam Cheikh Ibra Fall la dafa am ñoo xam ni nag lañuy liggéey di ko liggéeyal seen borom wax leen ji fekk coow leen ci fekk waaye ku xam ràññee xam ni réew mii moom li nga xamee ni mi ngi fiy dox ci jàmm ak salaam Serigne Touba liggéey na ko démb tey doog ñëw kon ñu ngi ñaan yàlla ñu tàbbal ci jàmm jooj te yàlla na sax. ñu ñaanit sëriñ bi yàlla na fi yàgg di ñaanit suñu xalifa général bu bu baax bi sëñ Abdou Mo sëñ Abdou Modou Mbenn Fall yàlla ko fi yàlla bàyyi jàggal ko fi te di jiitalit ci loolu it Cheikh Mountakha Bachir di ci jàkkaar tey ëllëg nga xam ni yebal na fi doomam yebal fi délégation ñu toog wax fi wax ju rafet ñu fi wax te ñaan yàlla bokk ak ñoom lépp xéewal yooyu ñu ngi nuyu itam wax dëgg yàlla képp koo xam ni daal. Euh, bokk nga ci yoonu murit ñëw teew fii ci bis bi xëy na suñu yéene yëpp mënuñu koo génn euh, yéene nañ daal lu ëpp li ñu wax di la wax li daal ñun en tant que représentant état teew fi président fii ci Grand Dakar lépp lu ñu am ci bis teewee muy ren muy déen muy déen jéeg ak heure bu ma doon ubbi nañ suñu bunt ubbi suñu man-man ak fes ko ànd ak yow ci jàmm ak salaam ci barkaamu Cheikh Rafal waaw képp kilifa gu fi teew ñu koy ziare xëy na bu ma limee ñëpp naa jum mënuma mënuma jaar si tur kilifa yëpp mais daal ñu ngi leen di sant ñi ngi gërëm jox ne daal yal na yàlla def jàmm ci Sénégal ba xéwal gi ñu ñëpp ñu bokk ñu baal ñàkk jërë ngeen jëf wa salaam. wasalaatu wasalaamu ala ashraf al mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا maa ngi gannaaw ba sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal sëriñ Muntaxa alxalifatul am yàlla bàyyi ko fi dëgëral ko ba lii mu bëgg a liggéeyal bëgg koo liggéeyal yoonu sëriñ Tuubaa yi yàlla yombalal ko ko ah xam naa kàdd yu kàddu kóllëre la ak kàddu yu gàtt rek ndax sama ñëw fii day loo xam ne nii lu jaadu la te yàgg naa ko def aussi muy bis bu màgg du bis bu maam Cheikh Ibrahima Fall ci liñ fi toog lépp baatu laa ilaha illa allah rek lañ fi dégg te yàlla moo njëkk wax ne inna nii inna nii am na allahu laa ilaha illa ana kon yàlla moo njëkk wane baatu laa ilaha illa allah sallallahu alayhi muy sunub yonent moom it moo wax ne baat bi nga xam ne moo gën a màgg ci yàlla mooy baatu laa ilaha illa allah xaadimul mustafa sëriñ cheikh ahmadu bamba ne wala tuaadu man faahu yaxruju laa ilaha illa kon tey bis bi kon dañuy xam ne maam cheikh ibrahima fall moom dafa dem jëli caabi ji nga xam ne mooy caabi ji gën a gaaw muy baatu laa ilaha illa allah ndax kat boo duggoon ci lislaam di julli di woor di dem makk di aji te bi ngay dugg ci lislaam ba xoofu baatu laa ilaha illa jëf yooyu nga defoon yépp du compte kon ñu gise ci ne kon maam Cheikh Ibra Fall dafa dem moom fa gën a gaaw mu téye ko di fa liggéeyal yàlla di fa liggéeyal yonent bi di fa liggéeyal Sëriñ Tuubaa ñu ciy sant nag Serigne Cheikh Khadim Fall bi nga xam ne moom at bu jot mu ne mooy organise lii mu baaxe nu ñu koy fekkee fanaan fii ci guddi gi yëpp ñu tudd laa ilaha illallah kon Serigne Cheikh ñu ngi lay sant di la gërëm ci di la ñaan yàlla nga ko gën a man yàlla nga ko yàgg def ca li ma waxoon feer léegi rek Serigne Cheikh Fall xam naa ko baax ci ak taalibeem ak woyefam akuk mbaaxam akuk baay faalam loolu moo taxoon ma wax léegi ne képp koo xam ne yaa ngi koy liggéeyal yaa ngi koy jàppale jàppale ne yaa ngi liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall kon yéen mbokki taalib yi fi ñëw yëpp li ngeen di sàkku muy ngërëmu Serigne Touba ngërëmu maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na leen ko yàlla defal te nañ ci yaakaar lool kon di nuyu sëriñ Galas Kaltoum mi toog fii ak euh, njabootu Cheikh Mouhamadul Mountakha muy sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Moustapha Bassirou ak sëñ Abo nit ñi ñi fi ñëwoon teewal fii sëriñ Mountakha te jël fi kaddu wax fi wax yu rafet ñu ngi leen di nuyu di nuyu préfet Mamadou Mbacke euh, Fall ci waxam ju rafet yi ndax moom fii bu fi jëlee parole war na koo jël sur le plan administratif war na war na koo jël itam ci ci taalibe di nuyu représentant xalif général de bay Fall di ko jox sudum nuyoo mu jël jàllale na ko ci kilifa gu tedd kaw ah maa ngi wax ne nag sëñ Cheikh baat yi ma fi rotal ndax bu ki teewal Serigne Touba. muy sëñ Mountakha bu xasee wax kenn amul woon droit ngay waxaat ndax sëñ Mountakha moo tënk lépp waa kàddu la goo xam ni maa ngi koy wax ci turu sëriñ Moustapha Mbakke nga xam ne mooy xalifa sëriñ Baara ak sëñ Abdul Karim Mbakke muy xalifa sëñ Abdul Aziz Baara kon sëriñ Cheikh maa ngi lay gërëm te di la ñaanal yàlla gën la ko manal barakatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Bamba barke maam Cheikh Ibrahima Fall waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu